salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu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 wajal kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arsida wa bi kalaamiya wa bil isaara ihdi muridan yatlubul inaara asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen ziyaare ci nuyoo bi nga xam ne moo gën a foor te gën a màgg te jëfee ko nekk njariñ wax ko sa làmmiñ nekk yool boo xam ne am na fu mu tàmbali waaye amul fu mu yem mooy juróomi baat yooyu nga xam ne lañu suñu borom ko wa taala boole waaye balaa dara xew ñu ngi jiital ci nuyoo bi ak ziar bi yëpp euh, alxalifa alxalifatul am li taifatul muridiya cheikh mouhamadul muntaxa basir di ñaan suñu borom mu gën a yokk ko aw fanam gën ko fee yàggal ba lim bëgg a fas yéene liggéeyal islam yëpp mu am kàttan ak euh, dignité ba man koo taxawe di nuyu bu baax a baax a baax suñu sëriñ bi nga xam ne moom moo fi nekkal seex Mouhamadou Mountakha fii si Jolof mooy sëriñ seex Jorel Mbacke nekk suñu sëriñ di suñu waajur nga xam ne moo taxawee liggéeyu yoonu murit fii ci Jolof ñu ngi koy ñaanal suñu borom tabaaraka wa taala mu gën ko fee yàggal lool te yokk kàttanam ak wërsëgam ak wér-gi-yaramam ba mën a taxawee li nga xam ne moom la fas yéenaa taxawee yëpp xam naa ne nag kàddu jorul di guddal ndax xam ngeen li ñu fi dajale lépp dara waralu ko lu dul sayxul xadim mi nga xam ne mooy yaakaari jaam ñi tey ak ëllëg gannaaw bi nga xam ne liggéeyal na diine loo xam ne manes naa wax ne kenn mënu koo takk ci ab fenn foo xam ak buum wala mënu koo wax ci aw làmmiñ loo xam ne ëmbatul kenn ñëpp gis nañ ko liggéey boobee nga xam ne moom la liggéeyal suñ borom tabaaraka wa taala yàlla jagleel ko nag ku ñu xam ne suñ borom mooy ko mat képp ku ko defal dara dara la fayee lu la jom loolu suñ borom fayee ko ko nag daf koo yéem ba gis may rëy gëm ba mu woote ne may daal rey na dara waratul ci man lu dul ma sant suñu borom tabaaraka wa taala gannaaw ba nga xam ne delsi na cant googee nag dafa commencé sant ba mu neex ko mu xeeb ci boppam lool dem ba ne xeeb naa sama bopp sax ci cant gi ma bëgg sant suñ borom kon nag maa ngi ñaan bisub tey bi saa yu del seetee mooy 18 safar képp ku ma mën a santale suñu borom ko wa taala nag ma santale suñu borom loolu nag moo ñu fi dajale mooy yéene ji nga xam ne moom la amoon ñi amal bis boo xam ne ci bërëb bu sell bii ñu nekk muy Mbàkke Baari Jolof ku ne xam na ne bërëb la boo xam ne bu am histoire lool la bu nekk bu màgg ci yoonu murit ndax Seexul Xadim euh, buñ ko tuddee rek ak liggéey bu rëy bu mu liggéey mooy jariñ jaam ñi jariñ jaam ñi fi mu ko amee yëpp daanaka mën nga ne tukkib géej gi ci la ko amee ndax ba mu waxee day yàlla may ma lii mooy maqaama ahlu badri bu rëy ba suñ borom tegal ko sart ne ko bal nga cee jot da jot ci natt yu yónnante ba pare lañ lay gàll natt yu yónnante yooyu nga xam ne nag moom la gàddul boppam am jom am suñ borom daf koo xamaloon ne ko bokk na ci lekkee may mooy nga génn dëkk bii di Touba ndax dafa da ko fekkoon biir tubaa mu duggoon benn intikaaf ci jeexantalu weeru koor ci la ko suñ borom tabaaraka wa taala waxee ne ko biir tubaa Touba Touba maxruusa la saa yoo xamante ne yaa ngi ci biir kenn du la def dara kon nag faaw nga génn ci dëkk bi ñu man laa soog a teg natt yi te natt yi moo lay àggale fa nga bëgg àgg ci la euh, dogoo moom ak ngorom ak jomam daa di génn biir Touba donte lu mu lu mu taamu woon la dëkk la boo xam ne moo ko ci dëkk daal di génn ba mu génnee jublu fenn bu fudul ci bërëb bii nga xam ne fi lañ toog muy Mbàkke Baari Jolof gii ñu nekk bi mu ñëwee ci la si tàmbali benn xaloo boo xam ne juróomi weer la fas ne woon a tàbb ca xaloo ba waaye ñetti weeree ca la ko suñ borom tabaaraka wa taala tàmbaleeg moom natt ba mi ngi fi jógee nag nga xam ne bisub tey bii nga xam ne lañ dajee fas yéene eh, na ko santale suñ borom bisub tey bii wax nañ ne moom la bind ne ci la ko jógee mooy rabian safar kon nag bis bii tey bis bu màgg la moo tax boobu ba léegi ngeen gis ñu tàmbalee ko nii nga xam ne eh, tàmbaleeg sant la woon jàng fi alxuraan jàng fi xasida eh, ak xasida yi nga xam ne kuréel yi doon nañ ko fi yëkkati yëpp ñu ngi ñaan suñu borom mu nang ko te tegal ñu ko ca loxoob jëwriñ ju tell sell jooje gannaaw ba it xam naa ne eh, comme ni ngeen ko xamee dañ koo bëggoon a àggale ak benn waxtaan bu am solo boo xam ne dana gën a jëmmal liggéey bi gën a leeral lan moo waral sëñ bi génnee fi te thème bi mi ngi jëm rek ci leeral sayxul xadim radiallahu anhu génne gi nga xam ne moom la génne mbàkke baari jolof wuy ji sa liggéey ba ban relation la am ak xasida gu sell gi nga xam ne bi mu génne wax nañ ne ci la ko bindoon muy xas mu tënkee ko ci eh, aay bi ñuy wax xasbunallahu wa ni'mal wakil nga xam ne ci xaraf yooyu ci la tënk xasida gi ci la ñuy eh, jëmm ju sell ji nga xam ne moo nekk suñu pegg di boroom xam-xam dafa naa kenn du leen ko présenté nga xam ngeen ko bu baax a baax muy Serigne Fallou Sylla doon gëstukat ci yoonu murit doon borom xam-xam bu màgg boo xam ne yaakaar naa ñëpp war nañ koo dégg wala ñu xam ko kon nag loolu uh, moom la ñu war a ñëwal leeralal ñi Seexul Xadim naka la génnee ak génn gi ban relation la am ak xasida googu mu bind xam naa uh, kàddu yi jërul guddal kon suñu ko teewloo bu baax danañ dégg ci moom mu wax ñi nan la Seexul Xadim radiyallahu anu génne ak uh, bind googu nga xam ne moom la bind téere boobu nga xam ne moom la defoon xisnul xasin bi génn ñu ngi ñaan suñu borom mu may ko tawféex may ko kàttan ba mën a commencé liggéey bi ci bisimilah rahmaani rahim ni ko bëggee mu defee ko noonu alham ci àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin kon sëriñ Fallou bisimilah. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wa sallallahu wa wa sallama tasliman walhamdulillahi rabbil alamin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi jiital suñu kàddu sant suñu boroom sant gi yelloog màggaayam di ko sant sant ko yelloog kaweem di jullit sëlmal ci suñu sang sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ak ay ñoñam ak saxaabaam di jaajëfal suñu kilifa Cheikh Ahmad al Abdul Xadim borom Touba. di ñaan suñu borom mu dolli ñu ay ndimbal ak i tawfiix ci barkeem di ziyaare itam al cheikh Mouhamadul Muntaqa xafidahu llah wa raa àggaleel ko ay yéeneem ci lislaam ci ëttu cheikh al xadim ak ci jullit ñi yëpp ànd koog mboolem rakkam yu baax yi ànd koog mboolem yoon wi ànd koog mboolem jullit ñi yëpp di ziyaara sëriñ cheikh Jooral Mbakke xalifa Serigne Cheikh Thioro mi nga xam ne moo nekk ci barab bi di jaare itam xalifatu Cheikh Mouhamadul Fadil Cheikh Abul Baraka ak mboolem jabaru Cheikh Mouhamadul Fadil yëpp di jaar rakkam itam Serigne Cheikh Oumy mi nga xam ne rakk la ci Serigne bi di xaritam di mbokkam di lépp ziyaara doomi Serigne Cheikh Thioro yii yëpp tàmbale Cheikh Mouhamadul Fadil ba ci Serigne Baye Serigne. sëriñ gaawaan sëriñ Mouhamad ziyaar itam Cheikh Mouhamadul Fadil Mbakke mi nga xam ne doom la ci sëriñ Cheikh Jorel te am initiative yu rafet ci rabiu safar bi am ci ndigalul sëriñ bi e, ci teewaayu sëriñ bi ci barab bu tedd bi ak daayira bi nga xam ne wala daayira yi nga xam ne ñoo fi daje di ay kuréel yu am solo jàng fi njàng mu am solo daje fi ngir waajale ko gatandu gi ñuy gatandu suñu gan gu tedd gi ñëw muy e, thamina achar e, safar muy fukki fan ak juróom-ñett ci aw diggi di bis boo xam ne ni ko suñu mbokk mi waxe rek dañ cee am ndigal ñun taalibi sëriñ Touba yépp ak ñi bëgg a jàppale Serigne Touba ci sant yàlla ñu santale ko ci bis bi lu muy sant boroomam mu ngi xam ne moo ko jagleel ay xéewal yu sababoo ci ab bis bis boo xam ne nit am na ci victoire ci àdduna daf koy feete moo tax Cheikh Mahamadul Fadil bi mu wootee màggalu Touba ca Touba première année dafa wax ne lu ko mat lu ne wutal lañ ko bis loolu moo tax Serigne Touba wutal boppam bis boo xam ne mooy bis bii ko suñu borom maye xéewal yi te mooy bis ba mu génne woon ci mbakki baar yi dem ca tukki ba gis na ne li mu am lépp ci bis boobu la ko am xéewal yi ko yàlla jagleel àddina ak àllaaxira yépp li mu rawee ñi ko ñee ñépp ci sababu bis bi rekk la ko amee mu delloowaat nag bis bi ca sant yàlla di ko sant sant boppam di ko cant cant xol di ko bind di ko firndeel ci ay waxam di ko firndeel ci ay mbindam ba mu jàgg cant googu mu yaatal ko sas ko ay taalibeem ak bokkim jullit yépp loolu nag moo ñu fi dajale loolu nag dafa fiiroog bi sëriñ bi dem ci fukki fan ak juróom-ñaar yi ci weeru safar mu tombeek bisu ajjuma tàkkusaani ajjuma sëriñ bi dafa waaj waajtaayu war a xëy dem wuy ji euh, tubaab yi ca ndar fekk na booba itam yónnee woon nañ ko ay lettre yu bari ci sabab boo xam nañu bari xam nañ ko mooy bi muy door a jóge Touba di ñëw Jolof ci 1895 Leclerc mi nekk Louga nekkoon commandant serkel bi moo yilifoon Jolof ak li li ci aju bi mu déggoo yëngub Serigne Touba ci Jolof da cee am aw gisiin ginnaaw boo xam ne sëriñ bi mu ngi doon yëngoo ca Bawal te tàmbale woon yëngu bi ca Kajoor muy dox ba àgg Bawal yëngu bi nag njëkk muy ñëw ci Jolof amoon na lu ci jotoon a dem ca gouverneur général bu Ndar jamono yooya ba sëñ Mbàkke Buso nee na jotoon nañoo ñëw ci sëriñ bi yable fi sëriñ bi yabal ay ndaw ñu dem ndar wax leen lim nekk ak li ko tax a jóg ba sëñ Mbàkke nee na gouverneur général sax jamono yooya yëkkati woon na ay kado maanaam jox ko sëriñ bi mooy yëkkati woon na daal yoo xam ne ak juboo amoon na ci seen diggante ci ay tuuma yu bari yoo xam ne doon na ko dégg ci bawal yoo xam ne ñi noonu sëriñ bi ak ñi nga xam ne réere nañ mbiram daa nañ ko taqal am mbooloom ginaaw bi nag bi nga xamee ne sëriñ bi toxu ñëw na fii nag ci ndigalul boroomam moom itam bi mu ñëwee loolee ko toppan foofee ca bawal da ko tàmbalee topp fii ci gox bi lekkileer ko moomu moo taxawoon temm ci boole ko ak kalaame ko Euh, ba jamono yi nga xamee ne kalaame yi ëpp na dañoo wax ne gouverneur bi nekkoon Ndar mu ngi tuddoon euh, gouverneur bi nga xam ne Dalamut la moo moo doon jeexal moo doon jeexal Jean Jean Baptiste Sujet maanaam war ko wuutu ci diggante boobu ak seegut jamono yi nga xamee ne tubaab yi ñi ngi jël Sëriñ Tuubaa di ko yóbbu Ndar fekk na booba ku ñuy wax Louis Moutet moo représenté maanaam euh, gouverneur bu Ndar euh, jamono jooja itam Merlin mi nga xam ne moo yoroon affaire politique ci Sénégal moog Leclerc ñoo gënoon a noonu Sëriñ Tuubaa muti moomu mooy ki nga xam ne moo représenté borom Ndar jamono jooja maanaam waaye borom maanaam ki nga xam ne moo war a jëw nag nga xam ne mooy sujet bu ñëwee day yilifaale Afrique sowu jant gépp waaye mission jox nañ ko ko waaye ak séegut ba war koo mën a doxal diggante boobu nag lañu wax ne la Louis Moutet daal di wax ne nañ def benn conseil privé ñu gaaw exiler sëriñ bi ndax mën naa am la ko gouverneur bu njëkk ba mayoon ba ba dégganteeg moom mën naa am kii bu ñëwee su su leen dégloo du leen da leen da leen di bàyyi ci lañ ne kon nañ gaaw daaw profité atte ko su ko defee bu ñëwee rek fekk ju yóbbu ko moo tax ñu ne conseil privé boobu atte bu jeng la ndax maanaam ña nga xam ne ñoo taxawoon war a jaamaarloog sëriñ bi ci wàllu justice am na ci ñoo xam ne sax ay citoyen simple lañu woon am na ci ñoo xam ne ay jàngalekat lañu woon comme enseignants yi rek. am ci ñoo xam ne ay docteur lañ docteur boo xam ne day faj mooy médecin am na ñoo xam sax spécialiste wuñ dara ci lu jëm ci yoon nga xam ne daanaka ay nit ñu dajale war rek lañ wax la leen neex am na ci ñoo xam ne sax amuñ genn tànk far ay banaa rek lañ te boobu sax wax nañ ne nit ku ñuul rek moo ragal ko weex waaye Sénégal gépp boo recensé woon ñi fi nekk ci ñu weex mutuñ sax vingt personnes mboolem tubaab yi nekk Sénégal booba ña ci ami ndomb tànk ak ña ciy wëreel yu dox maanaam mutuñu woon vingt personnes waaye booba tubaab bi rëy na rëy goo xam ne France itam rëy rëyal na mbir yi rëy goo xam ne booba nit ñi xamaguñ yu bare bari ci lu mel ni moo tax bañ ko daje bañ daje seen biirum néeg rek atte ko atte boo xam ne du atte dara lañ gaaw nag yóbbu ko nag mu daal di dem ca tukki ba am fa juróom-ñaari at yu teg laata moo dem nag dafa diyaaleeg boromam ci xasida goo xam ne ci tarjumaan ji da cee dañoo wax ci tarjumaan ji ne qasidatun muassasatun min xurufi xasbuna allah wa ni'mal wakiil wa qaala bi hadihi alqasida taxassantu ashiyata yowmi aljumaa xiina azamtu ala almasir yowma alsabt maahum baada an xassanani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa adina fi almasir wa qaala imshi la taxsha darar fa haakaha bi rummatiha tabarrukan wala yaxtarimha muslimun yuxibu taxallus mimma yasuuhu wala taalam bi matlaciha annahu mukaashifun lahu bi ismatihi wala tansa qawla baadihim inna saacata aljumcati hiya baadu alasri ila gurubi alchams tarjumaan ji dafay wax ne xasida gi de ñi ngi ko liggéeyee ci arafi xasbuna allahu wa ni'mal wakil waaye sëriñ bi bi mu dogoo ci génn ci suba gaaw gi ci ngoon nga ca la dogu nga xam ne booba maam no sëriñ bi yónni woon na ko ndar waaye booba sëriñ bi laloon na ci xelam ne su xëyee ci gaaw bi day dem dox wut wuy wuy ji leen bu dajeeg maam Cerno dajeeg dajeeg moom su dajeeg ñoom itam dajeeg ñoom su ñëw gi tit mu fekk si leen loolu moom façon na ko ci xolom waaye nag ci ci ci ci timis gi maanaam tàkkusaan jàpp timis ci la ko rasulullahi sallallahu alayhi wa feeñoo ci ajuma ji ginnaaw moom taalifee xasida gi ba noppi xamal ko ne ko man ngaa dem wuy ji te bu ragal benn lor maanaam aar naa la sange naa la ba mënaluñ la dara loolu nag ci barab bii la njëkk ame maanaam yónnante bi sallallahu alayhi wa moom ci lu dul dara dox seen diggante dañoo wax ne gis gu njëkk gi nga xam ne moom la Serigne Touba njëkk a gis yónnante bi sallallahu alayhi wa mooy xalwatu ba mu duggoon bi muy bëgg ñëw ci Mbacke Bari ca Touba mooy ca koor ga mujj koor ga nga xam ne ca kori ga ca suba sa la ñëw fii mu firoog 1895 koor googee ca la gis yonent bi salaa salaam wara a sitrin sa faaf fekk ne booba am na rido bu dox seen diggante mu nekk ci ginnaaw rido bi mu di ko séen waaye nag booba am na lu dox seen diggante gis gëm ko dégg gëm njëkk dégg kàddoom nag mooy ba mu sas yoonu murit booba dañoo wax nag kàddoom la dégg ndax dafa wax na shaafahani rasulullahi shaafaha mooy mu shaafa mooy wax na ma may dégg gisu ñaareel gi nga xam ne mooy firndeel yontu bi salaa salaam maanaam mooy da gis war sa faaf waaye gis gi mu wax fii ci Mbàkke Bari go gis la koo xam ne yaanan la amul benn baaraas bu dox diggante ak moom ba noppi du kàddu kese waaye jëmm ji diggante ba Sëriñ Tuubaa dara doxu fi mu wax ko li mu koy wax loolu mi ngi ko njëkk a amee fii ci Mbacke yi dañu wax ne loolu nag tàggoowut ak moom tàggoowut ak moom ba li ko desee ci àdduna yëpp muy dund waaye gën naa gën naa firndeel nag firndewu ci biir tukki bi ci bépp barab boo xam ne Sëriñ Tuubaa dem na fa bu jafe-jafe amee yonent bi sallallahu alayhi lay gis jahratan loolu ñu ngi ciy firndeel ab jataay muy keroog bi ñu ko yóbboon ndakaaru ba mu fanaan fa guddeem nga néeg ba ñu ko dugaloon mu teg tànkam bi euh, lépp luy jame ñu def ko fa nga xam ne tànkam bi mu njëkk a teg dafa dañoo wax ne da ko teg ci luy jam lu mel ne rabb wala wala xottu biteel dara loo xam ne dafa dagg ba sar mettit woowu tax na sëriñ bi mboolem lu nekk ci néeg bi lu mu laal luy jame lay doon te néeg ba xat na du néeg bu ñu mën a toog du néeg bu ñu mën a wéeru te it xat na lool te lépp loo xam ne lu xasaw la lu métti daal lu mën a doon rek def nañ ko fa sëriñ bi dafa xalaat ci biir xelam ne leen rek la mën a def mooy taxaw maanaam julli ñaar rakan yoo xam ne maanaam day sëgg noonu yéene di jàng alxuraan muy jàng ba Baqara ak Al Imran ci biir boobu nag bi mu xalaatee nag sëriñ bi ci boppam moo ne xolam yëngu na ba mu naroon a jihaat ñoom ndax yàlla may ne ko ngànnaay yu rëy yoo xam ne mënoon a jihaat ak ñoom waaye bi mu tàmbalee ba ba bëgg a jëflante ak ñoom ci la yonent bi sallallahu alayhi ñëw defal ko ne ko xoolal ci xamsatu xamsatu sayda Hamza bàyyi bu ndaw la ci yonent bi sallallahu alayhi kere ca xasatu Badr kere bi nga xamee na Hamza Hamza Hamza bañ koy rey bañ koy bañ koy rey maanaam Hamzatu biñ koy rey dañ koo jam ginnaaw Badr la ginnaaw Badr ginaaw Badr dañ koo jam ndax ca xare Badr da caa defoon ak njàmbaar Hind ci boppam dañ caa reyoon baayam moom mu amoon yéene yi Hamza képp la bëgg ñu rey ko ko bi nga xamee ne keneen ñu ngi rey Hamzatu ginnaaw Badr rasot Badr dañ koo rey ci kanam yonent bi salaa salaam daa di xar biir ba génn res wa jox ko hind hind yëy ko ñëw buus ko ci kanam yonent bi sallallahu alayhi loolu la ko yonent bi fàttali ne ko xalamal ci Hamza kere niñ ko def ni méttee nga xam ne gis na ne te moom loolu du ko dal du ko dal ndax dañ ko garanté dana dem di ko dana dikkaat loolu ci la defalee eh, sëriñ bi sëriñ bi daal di giifaat daal di muñ nattu ba ba na ko fa yàlla génne ci jàmm loole nag xaside gii dafa mel ne laataa sëriñ bee ñëw dañ koo wuññil mboolem ne nekk ci kanamam moo tax mu ne yow miy xool xaside gi nanga nga jàppe xaside gi muy xaside musulaay ndax lépp lu waaye bëgg mucc mën na ci mucc ci darajee xaside gi daan ne yow miy xool xaside gi de boo tàmbalee ci bayit wu njëkk bi na nga xam ne moom mi def xasida gi annahu mukaashafat lahu bi ismatihi maanaam ci bayit wu njëkk bi rek dañ koo firndeel xamal ko ne ko maanaam yow wuññil nañ la tukki bi li ciy xew lépp da nga ko gis ci dem ak dikk te yàlla dalay aar doo des ginaaw moo tax mu ne laxaasa abdullahi xaadimu rasul dunya wa uxra ismatan wa xayra rasul isma mooy ab yonent bu nekk li ci ëpp yàlla def koy aar digganteem ak ay noonam ba mu àggale mission am door a am na nag ay yonent yoo xam ne amuñu isma ndax ku mel ne Seydina Yahya dañ ko rey lu mel ne Seydina Isa da doon woote ci biir woote bi ca lañ ko salab mooy noonu ñu ko reyee daaj ko ca kurwa ca bant ba waaye booba wax nañ ne alquran nee na sax wa maa qataluhu wa maa salabuhu walakin shubbiha lahu dañoo jël waaju nuroog moom ñu bàyyi ko ñu tendre ko daal di koy rey ca bant ba waaye fekk na moom Seydina Isa moom yàlla yëkkati na ko mu dem waaye yonent bi ne yàlla ma da ko mayoon isma moom mission day jeex takk du dem ci ab xare des fa kenn du ko bett jam ko mu jóge fi moom daal dafay woote ba diinam jeex mission am jàll ca na ko bëggee yàlla jële ko ci jàmm loolu moo tax kere ci xajatul daa bi muy tàggatoo ak jullit ñi dafa wax ne xëy na mën naa am ren laay mujj aji si di dajeeg yéen fekk na mission bi jeex na mu ne alquran wàcc na al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu aleykum niamati wa raditu lakum islaama diina islam complété mu door a dem ci jàmm sëñ Tuubaa itam bi mu jógee ngir yeesalaat yoonu yonent bi salaa salaam wa bi yajaddidi sabil bi wa bi yajaddidi sabil bi laa idan aw alami suñu borom daf koo rafaatale ismatu nabi salaa salaam muhammad sallallahu alayhi wa sallam xamal na ko ne ko da tàmbali di woote dem tukki daj ay nattu yeesalaat diine ci jàmm ba dellusiwaat maanaam jóge fi ci jigéen woo xam ne benn man-manu doomu aadama wala benn pexe doomu adama du ci ànd yàlla dogaloon ne Touba lañ koy indi ginnaaw boo xam ne dund na juróom-ñaar fukki at ak juróom te kenn du ko mën a e, lor dafay jóge ci coobare suñu borom te li mu bëgg a taxawal lépp da ko fiy bàyyi maanaam mission bi di dox ñu di ko donnante ginnaawam dara du yàqu mu door dem loolu mooy isma loolu ci bis bi la ko amoon ci xasida gi la firnde ne keroog la ko am te ci barab bi la ko amee woon mu ne loolu nag na nga xam ne li ko waral mooy maanaam bis bii ma amee loolu waxtu wi ma doon ñaan yàlla day waxtu woo xam ne lu ci waaye ñaan yàlla yàlla nangu ko waaye moom itam dafa fiiroog muy koo xam ne lu ñaan yàlla yàlla nangu ko muy ñaar yu daje fi ne waxtu mën naa baax lool ku ca ñaan yàlla yàlla nangul nangul la ba noppi waaj a des am réseau maanaam maanaam du du du nekk du connecté moom ci boppam. bu ñaanee mën naa am dafa am lu am lu sikk ci moom xëy na temps bi féex na waaye moom ci boppam moo am jafe-jafe Serigne Touba nag moom yàlla dogal temps bu mu ñaan mu nangu ndax moom bu moom bu waxee yàlla wuyu ko ba noppi nag waxtu yi mu doon ñaanee itam day waxtu woo xam ne dañu ubbi yëpp moom itam yàlla ubbil ko tënk li mu bëgg a tënk lépp digganteem ak boromam yonent bi sallallahu alayhi wasallam tamponé ko mu door dem mu bind ko firndeel ko ci xaside yi loolu tax xaside yi xaside koo xam ne maanaam dafa mel ne dafa synthétiser tukki bi lépp. boo xoolee ci biir xasida gi da nga ci gisaale mel ne étape étape ba nar a jaar dana ko tuddaale ci biir xasida gi te demagut ndax dañoo wax ne maanaam ñaari téeméer natt ak juróom-ñett fukk ak juróom nangam maanaam maanaam suratul ahwaan mooy suratul baqara ni mu toll ci ay aaya natt bu ci ne danañ ko ko teg te natt bu ci ne war na fee mën a jëlee nit natt bu ne rek war na fee mën a jëlee nit te bi muy dem ñaar téeméer nattu ak juróom-ñett nangam yu teg yooyu ak juróom yaakaar naa juróom-ñett fukk ak juróom-ñett fukk ak juróom ñaar ak juróom-ñett fukk ak juróom 285 ans waaw 285 nattu yoo xam ne benn bu ci ne mën na fay jële nit bokk na ci rek benn nattu boo xam ne war naa mën a jële nit ci àdduna mooy gas giñ gasoon lu mel ne am pax maanaam tàbbal ko ca biir pax ma maanaam suul pax ma loolu moom loolu moom jàpp naa ne kuñ ko def bu dee nitu ordinaire la moom kenn dut ko waxati te loolu maanaam juróom-ñett fukk la ci maanaam ñaar téeméer la ci ak juróom-ñett fukk ak juróom yoo xam ne benn bu ci ne lu mel noonu la te loolu lépp ci biir tukki bi lay am te du amee ci benn jataay du amee itam ci benn millier ci ay milliers yu wute lay amee am na ci yoo xam ne Dakar la ko dale am na yoo xam ne ci biir géej gi ci biir gi bi mu wàccee cëppeelu ci géej gi mënoon naa jàll ànd ak dara dem ndax maanaam itam kenn mu a gis maanaam nit ku ñu sànni ci géej mu cëppeelu nit di kat kon loolu benn la ci nattu ya nga xam ne boo ko toppee ca Ndakaaru ba ca ba ba ca Conakry ba ca ba ca ba ca ba ca Libreville ba ca Bavili ba yooyu yëpp day gis ne fenn fa nekk am na fa natt yoo xam ne benn bu ci ne nit mën na caa des ba mu rëccee ca néeg ba ca Ndakaaru rëcc ca nag wañ ko booleloon ci biir bato ba maanaam nag nag nag wu foñaak woo xam ne maanaam ci biir bato bi wax nañ ne ci biir bato bi la dafa am benn mbedd boo xam ne bu xat la nekk nag bi dañ ko dencoon ci fenn daa di nag wa am na ñu ne xërëm la am na ñu ne nag nag la rek woo xam ne wu foñaag wu wex daal sàmm xam nañ nag yu wex yi nga xam ne dañ ko tëjoon fenn lañ wax ci biir wago yi foo xam ne am mbedd la biñ jugalee sëriñ bi foofa ci mbedd ma ubbi ko daal di ubbi nag wa nag daq mu daje ak moom nga xam ne ci biir raj rajo ji bu daje woon ak moom maanaam waramal is bi taala su fekkoonte ne maanaam du coobare suñu borom foofu rek lépp mën na faa yam te loolu sëriñ bi junj na ko ci ndax nee na bihi audu dafa njëkk wax ne na xamitu man suma nii min a darar min kulli shaytaanin wa jinin wa bashar sant naa yàlla ndax aar na ma ci lor yi di jóge ci seytaane di jóge ci jinne di jóge ci mbindeef boo xoolee seytaane maam moom moom <coughs> moo wara lépp moom seytaane moom mooy moo taxawoon ci ginnaaw jeu bi yëpp moom mooy yàq pexam ma bon mu ne moo leen koy sax jinne yi yu bon yi ak seytaane yi ñooy ànd ci lépp bindeef yi tubaab yi moom ay mbindeef lañ di ay nit ne moom waaye ñoom ñëpp kenn ku ci ne jàmmaarloo nga sëriñ Serigne waaye teewul wax na ne ñoom ñu ñëpp kenn mënu cee lor Serigne Touba ci genn wet loolu bu fekkonte ne dafa bind xaside gi ba mu demee ci géej gi ba ñibbisi dañuy wax ne lim ñibbisi moo tax mu bind ko su fekkonte ne da koo bind fii bàyyi ko fi ba noppi dem di gisatuñ ko it bara di tari bu kenn du ko mën a dañ koy dañ koy rek waaye loolu lépp yàlla musal na ko ci mu waxaat itam ne subhanahu rabban xafisan ahtami bi xifzihi min al bala wan niqami wane na mi ngi wéeru ci borom boo xam ne dana ko aar ci ay balaa yi ak naqar yeeg mitit yi kon xamoon na ne ay balaa dana dana ko dana ko dana ko dana ko teer ci tukki ba ay mettital yu metti nañ ko fa teg bihi auzu min hawaaya wa lain wa min jamiil musiyati kulli xiin nee na itam maa ngi xam le ne yàlla musal na ma ci sama bànneex maanaam yàlla musal na ma ci sama bànneex mooy la mboxoon ne akramtani bi salawaatil xams wa ramadaana xaameen an rams maanaam musta tayel bànneexam mës koo noot ba mu tayel ba faat wenn waxtu dëddu tukki bi ak lu mu metti metti ñàkk faat waxtu moo taxoon bu bu ci yàlla antoon mun na doon a des sa ndox ma waaye musta topp bànneex ngir lum ñàkk lum lekk wala lum naan woor nag koor goo xam ne maanaam koor benn panu koor ga ba ca kori ga musta ñam luñ togg am na ci yoo xam ne sax bu dog jotee ngir sunnaal koor ga day dem yëkkati ay xobi garab maanaam yëy ko ngir mën a dokkooram ngir bañ a def wisal wisal mooy war continuer kon yooyu yëpp nay gis ne maanaam kon bakkan mënu koo not ba mu bàyyi topp seytaane mënu koo yàqal moom min jami al mosiyaat lor yi nga xam ne moo koy xaar ci géej gi muy yiñ ko dem tegal dara mënu ko caa lor loolu li ko may nag mooy euh, siddatu tawakkulihi ala allahi subhanahu wa taala bàyyi gim bàyyee boppam yàlla dañu wax ne xasbunallahu wa ni'mal wakiil maanaam dañ koy wax waaye lu ñuy dund la lu ñuy dund la ginnaaw badr badr al maanaam badru ni kuba maanaam xare badar bi bu njëkk ba yéefar yi dañoo dajeeg yonent bi sallallahu alayhi jullit ñi duma leen ca suba sa ca topp nag ñu mer ñu ne dañuy def revanche léegi ñëw dal ci kaw yonent bi salaa salaam ginaaw boo xam ne jullit ñi ñibbi nañ ba noppi léegi nag ñu ñëw fekk yonent bi salaa salaam ah jullit ñi séddoo nañ bagage yi jële woon Badr tasaaroo nañ ñu ñëw nag ne ko ña songaat ñëwaat nañ di song songum ñaareel wax nañ ne boobu daa fekk yonent bi salaa salaam amut ay arme yu bari amut ay soldat yu bari ñu néew la fa fekk waaye comme yonent bi jomm naa daw. mu wax saxaaba yi ni leen nañ wàññikuwaat dem def ak ñoom revanche maanaam diggante boobu wóolu gi mu fi wóolu yàlla am na ñoo xam ne sax xaw nañu tiit waaye ñan nangoo dem te ànd ak yontu bi salaa salaam dañoo na ci secret hasbunallah wa ni'mal wakiil mooy wakiirlu gi ñu lu jox seen bopp yàlla bàyyeeku lépp ànd ak yontu bi salaa biñ doxee jëm ca xeexukaay ba ca la ñenn génn dab yéefar yi ne leen jullit ñi maanaam gën nañoo dajale mbooloo moo xam ne bu ñu leen fekkaatee nañ leen defal lu raw lañ leen di def ñu tiit bàyyi fa seen bagage ya ak seen matériel baag yépp jullit ñi ñëw bu ñu agsee fekk ñu bàyyi fa màng mu bari alladina qaala lahum annaasa inna naasa qad jamacu aleykum faxshawhum fasaruhum imaanan wa qaalu xasbuna allah wa nicmal wakiil fanqalabu bi nicmatin min allah wa fadlin lam yamsum suu wa tabacu ridwan allah wallahu dul fadlil azim loolu moo tax bi ñu wàññi koo ñëw fekk ñu daw ci kaw wakiirlu gu tar googu la leen yàlla tàggatale noonu ya ñu wàññi nag ñëw lañ fa fekk lépp ci seen tiitaay nga ja lañ fa bàyyi ñu buub ko muy am màng la nga xam ne bu ñu xeexoon ñoom ba gañe leen loola lañ ca waroon am muy muy seenu màng far ñu am ko ci lu dul xeex ba pare yéefar yi daw ñu ne loolu lu leen ko may du arme yi waaye siddatu tawakkulihim ala allahi subhanahu wa taala moo tax sëñ Tuubaa defoon arme muy wakilu ci yàlla euh, teewul nag baatu xasbunallahu wa ni'mal wakiil am na ay yëfi boppam yoo xam ne sëriñ bi ci boppam wax na ne ñetti at yu njëkk yi ci la doon jëflante ak ñoom mi ngi ko doon wax ci xasidak wasilatu rubuux waaye dafa am benn bis rek mu ne léegi sax bàyyi naa jëflanteeg ñoom li may def mooy léegi maa ngi jëflanteeg ñoom ci muñ ak wakkiirlu ci yàlla su ma xëyee bu ma lu metti dalee baax na su ma xëyee bu ñu ma taralee baax na su ma xëyee bu ma defalee lu ma naqari baax na bu ñu ma lu ma neex baax na yaa bi euh, mooy fa mu wax ne taraktu tadbiri bi tadbirika lii wa anqadal bayu bi tibikal kari yaa rabbi in aataytani fa shukru wa in manata fa ridal wa daa ne wax daa di wax na fal man wala ataaw xataan min ka laa min siwaaka an ka moo tax ci ñetti at yu njëkk yi dafa bàyyi lépp luy sabab défendre digganteem ak diggante noonu yi di rub juróom-ñaari yi ñeenti at yu mujj yëpp jëñut ñu duut lu mu xëy rek baax na loolu moo tax sëñ Moussa Ka di nettali ci tukki bi am ku muy wax naan léeg-léeg mu ñëw fekk mu toog mu ñu wéqatéer yi léeg-léeg ñu ñëw daal di jël sàngara buus ko léeg-léeg ñu fekk ko ci fa taxaw du ci wetam am na néeg boo xam ne xam nga Sëriñ Tuubaa dañ koo boole woon ak maanaam euh, soldat si maanaam fu ñu fu ñu ñu def base rek base militaire bu ñu def rek maanaam ci biir campement bi ci lay nekk ñooy bokk moom néeg ndax dañ ko doon surveiller jàpp na day mën a dana dem donte fañ ko yóbboon moom mënta dem fenn ndax booba euh, Gabon mooy fi gën a sori ci Afrique fi gën a metti fi nga xam ne ku ñu fa yóbbu tubaab yi sax booba buñ mës a buñ bëgg buñ bëgg a buñ bëgg sànq kenn ku mën a doon fa lañ la yóbbu bàyyi la fa am na fa àll yoo xam ne suñ la bëggee euh, rey te te te te te du doon te du doon loo xam ne maanaam kii lay doon physiquement maanaam moralement dañ la dañ dañ la fa yóbbu ndax nga feebar fa wala jiit matt la fa wala nga tumuraanke fa ba faatu bu ko defee ñoom ñu ñu salangu ci nga xam ne am na ñi ñu daa jàpp prisonnier daawuñu leen tëj dañ leen bàyyi ci àll ba boobu rek. am na sax am na ñoo xam ne sax ay nit yàlla yoo xam ne sax fa la ñu wëreeloo noonu ba mujj tumurànke faatu am nit ñoo xam ne dañoo jote woon ak opposé woon nguur jamono jooja colonialiste yi moo xam nit nitu nguur la woon ku war a fettirlu la woon wala buur la woon wala dara dañ lay ñëw sànni la ci àll bi rek booba Gabon am na ci biir gox yoo xam ne duñ lekk cin luñ togg ci cin ci garab yi lañuy fur yi lañuy lañuy lañuy dagg ci rab yi lañuy lañuy lañuy rëbb di lekk daanaka ay mala lañ amuñ benn xadara amuñ benn civilisation te it benn diine daanaka nekk fa woon tubaab yi ñoo fa daan nekk ñañ fa ñañ fa yóbbu woon te lenn ci ñoom ñi doonoon ñi doonoon ay ay ay chrétien daanaka ay mission moo leen fa doon yóbbu ndax booba am na am na am na lu tubaab yi bëggoon ci chrétienté Afrique nga xam ne ña doon ay benn benn la ñu doon yoo xam ne ay étranger waaye jëmmi ña fa dëkk moom ay mbaam àll lañ rek ñoom duñ dara moom nit lañ ñoo xam ne amuñ benn xadaara nga xam ne sëriñ bi nee na nekk na ci néeg boo xam ne àgg na ci su bëggee julli ci kaw bi la julli ndax dañ ko daan na xaral suñ bëggee tuur ndox dañ ñëw tuur ndox ci rom bi maanaam tuur ndox ci rom bi léegi la ñu wala ñu jékki-jékki jël sàngara tuur ko foofu ba nga xam ne maanaam mënta teg tànkam ci ci bi waaye bu bëggee julli day toog ci kaw lalam yooyu yëpp di ay xeeti mettital di xeeti yu xuuse yoo xam ne dañ na ko ci digganteem ak tubaab yooyu yëpp leeral na ko ci xasida yi mooy min jamii al musiyaat xiin nga xam ne waxtu nekk ñu ngi lay ay mettital waaye nee na woon yooyu yëpp yàlla dana ma ci musal mu waxaat ci biir xasida gi ne euh, najji janaabi min jamii ma yasu waa nag fi kulla ma yuwasisu ansrifil aadaa turran bin nabi wa ahli badrin kiraamin bi maanaam yow sama borom nag ma musal ci lépp lu may lor te lépp loo xam ne mën naa jax-jaxi sama xel ba ma ba ma ba jax jaxasoo rek loolu nag ma ci musal te noon yi maa ngi lay ñaan nga dox sama diggante ak ñoom ci dox goo xam ne day doon ci daraja yi yonent bi sallallahu alayhi ak ci taxawaayu ahlu badar ak ci taxawaayu ahlu badar nga xam ne day nekk barke bi bi ak taxawaayu ahlu badar du ñàkk nag may may jël léeg-léeg benn bayit wala ma tëb aw bayit waaye jublu maa sarde xasidi gi lépp damaa jubloo jël ci xasidi gi lenat loolu liñ ciy dégge mooy suñu borom aar na ko ndax barab yooyu ko fa mos a nga yàlla ku fa masam weddi nga yàlla ndax lépp luy weddiloo rek danañ la ko def loo lépp luy ak yonjax danañ la ko def loo lépp luy tax nga bàyyi sa pas-pas dañ la ko def loo waaye xam na ne maanaam du am dara luy jax-jaxee xolom maanaam bis bu nekk day gën a bëgg yàlla du am benn wasoo sa ci xolam liy firnde loolu mooy am na bis boo xam ne dafa bëggoon a jàpp dafa bëggoon jàpp ñu aaye ko ndox mi ndax boobu dañoo xam ne dafa mën a yàq ndox baaraam dañu marab bi di yàq ndox ndax jàpp-jàppee yu bari ñu daal di koy tere ndox ma waxtu julli jot mu bëgg a jàpp mu dem ak ki fam fam fa ndox ñu téye ko mu delluwaat fa mu fa nekk moom yor satala kese laata moo àgg ci néeg bi asamaan si taw di taw maanaam di sotti mu dégg ko satalaam mu jàpp ba noppi continuer fa mu nekk di julli muy sotti di sot ba mu jàgg kenn ci ñoom moo ñëw daan ko arrêté la waxal sa borom yàlla ñu ma arrêté taw bi loolu kon liñ ciy déggee mooy moom saa yu ñu ko gënee mettital mu gën a am ak tawxiid ci yàlla saa yu ñu ko gën a mettital mu gën a wéeru ci yàlla am na ñoo xam ne tey lu ñu leen gën a mettital seen tawxiid di gën a màgg waaye moom loo gën a mettital tawxiidam di gën a yokk waaye itam tubaab yi tam xam nañ ne ku am yàlla la ndax lu ñu koy xiisaloon rek yàlla wan leen loolu itam nga xam ne kon. was waswasatul xal bi gi nga xam ne moo yàqal góor yàlla yi mus ko dal dara te itam lépp loo xam ne dana ko tax nit def ko moom maanaam bu ñu ko doon defal ak góor yàlla benn yoon moom ma nga ne ay junni junni dañ ko def yoo xam ne bu ci ne bu doon koo xam ne xol bu woyof la yor kon ba tey maanaam dugal nañ ko ci ay sikk wala dara waaye luñ ko natt buñ ñu ko masa teg rek day gën a wóolu yàlla di ko gën a jege yàlla itam. lu mu gën a wakkiirlu ci moom mu koy wanal ne ko man ma rek may borom ma rek maa mat a wakkiirlu waaye ahlu badrin gi mu tudd ci ne maa ngi ñaan yàlla dëgërale ma ci dar barkeb yonent bi te dëgërale ma ah-, ahlu badrin loolu bi mu ko ñaanee bi sëriñ bi génnee fii ci bisub gaaw bi laata ba ak jeewal wax nañ ne ahlu badr ànd nañoo moom nga xam ne moom mi ngi leen di séen moo tax asiru maal abraari xiina asiru wa zanna al ida anni hunaka wax nañ ne al abraar yooyu mu doon jublu mooy maanaam dox na ànd ak waa ahlu badri yi nga xam ne ñoo àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam malaayika ya ak jëmm ya xare woon badar maanaam ñu dékkiwaat malaaka ya nga xam ne ñoo intervenir ca xare badar ba ak maanaam jëmm ya nga xam ne ñoo àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam xare Badar seen jëmm ya ak malaayika ya dekkiwaat nañ maanaam amee arme bu toll ne arme booba maanaam ànd ak moom fu mu mën a nekk musuñoo tàggoog moom nag waaye nag fekk na itam da leen a nëbboon nag maanaam musu leen a feeñal waaye fu mu fi toll rek xam na ne mi ngi ànd ak ñoom te day mel ne xasida gi day wax ne kon ahlu badar dana dana feeñ dana feeñ te boo xoolee ci mujjantalu xasida gi ci la ci la ci la bind ne mun na alaya bi duxuli saakina fi xisnika alxasina minhum amina anta alladi taasimu man bi bika tasam min kulli ma ya ummuhu min annaqam nee na yàlla may ma ma dugg ci biir kaaraangeeg maanaam waa ahlu badar maanaam ni nga leen aare woon bañ bañ bañ bañ not naa dugg seen kaaraange ba noppi maanaam pexe noonu yi ma mucc te nga musal ma ci lépp loo xam ne maanaam ak mettital la goo xam ne gu jublu si man li lii itam boo xoolee dafa am munaasaba ak bi mu <coughs> nekkee ci mujjug tukku bi ci Mayomba maanaam dañ koo booleeg fukki officier ak ñaar ak seen njiit ñii dañ leen a jàngal maanaam li ñuy sànnee paaka ñii dañ leen a jàngal li ñuy tiire bal nga xam ne kenn du ci mooy nga xam ne ku ci ne dañoo jël sëriñ bi benn bis boo xam ne dañoo wax waa dëkk bi yépp ak ñu bëgg a seetaan ñu ñëw seetaan si xew-xew boobu maanaam jàppal ko bis wax ko ñépp daal di koy woo taxawal ko ci genn garab ñi nga xam ne dañoo dañoo dañoo dañoo tàmm dañoo jàng maanaam paaka am na nu ñu ko am na nu ñu ko waxee nga xam ne. da koy sànni noonu waaw waaye am na nu mu tudd ci tubaab <laughs> xaw ma ba dax la xaw ma baax ba dax ma nga xam dañ koy sànni ci xeetu kii la xeex la ci ci ci soldat dañ koy xeexe ñooña dañ koo tàggatoo tàggatoo ba ba nga xam ne ñu ci jël pee nga xam ne duñ mooy dañuy dañuy samp fee dara lu tuuti benn waaye ba dax ko mu mu jëm loola. ñu jàngalaat ñoo xam ne tiir lañu leen jàngal nga xam ne maanaam dañuy teg fee lu toll ne bul ñuy dàkk di ko jëm. am ñoo xam ne saa yu saa yu saa yuñ ko diiree duñ essuyer ba nga xam ne lu gën a tuuti mën nañ ko jam kenn ku nekk gën a aaj sa group ñu sélectionné muy benn groupe ñu jàkkaarloog jëmmi Sëñ Tuubaa ji xam ne buñ ne un deux trois wala ñu ne quatre trois ñu tiir maanaam biñ ko defee noonu maanaam coow leen pënd mi ne kurr ñëpp tiit waaye bi ñu xoolee bi mu dalee maanaam amu ci benn bal boo xam ne maanaam agri sëñ bi am na ñu wax ne sax kenn ku ci ne sa tiir bi nga defoon moo moo rey ko moo ko rey moo ko rey waaja moo rey waaja kenn ku ne day mel ne sa bal moo la rey waaye tiir bi ci bopp aggu ci sëñ bi loolu nag jaaxle woon nañ ci waaye am benn bis nag ñu génn nag di tàggatu sëriñ bi nekk fi nekk bi ñu génnee ci àll bi ñu gis asamaan si yépp mel ne dafa fees dale ki malaayika fees dale ki ay jëmm yu war yor ay ay jaaseek lu ne xeeti nga naa yu nekk maanaam jëhratan moom nga xam ne suñu borom dana kasu xaalub ba badar ñu di ko gis booba nag ca lañ xam ne kon sëriñ bi nekk am na arme boo xam ne euh, bu leen digaloon rek ñu dal ci kawam maanaam sëriñ bi ci boppam bu digaloon tubaab yi maanaam arme boobu mën na dal ci seen kaw ci lañ tàmbali di négo négocier ak moom ci mujjantalu tukki gi ba mu jàgg ñu wax nekkoon dañ koy delloo si waat waaye wax na bokk na ci sabab ya ya leen tiitloo mooy maanaam gis giñ gis maanaam euh, ñooñu ahlu badar yi moo tax sëriñ bi wax na fi ne ila nasrina xat saarau ma xuyulihim wa xaafal ida minhum wa maalu ila salam maanaam yàlla ci boppam mi mat a ma mën a dimbalee damaa dimbalee ñoom seen bopp bañ demee ba pexe seeni pexe ba jeex benn bis leen ahlu badar yi feeñu mu wóor la ñoom jeexal nañ ay pexe te ñoom waa ahlu badar moom tàmbalee guñ te xamuñ fu ñu fu ñu fu ñu mujj ak ñoom ñu ñëw ñaan permission seen diggante ak sëñ Tuubaa kon mën naa am bu sëñ Tuubaa bëggoon rawaas ak ñoom benn pexe ma ma njëkk rek ci ahlu badar moom dañu leen faagaagal ñu jeex ñoom waaye nag ñu bañ maanaam moo tax wax nañ ne tubaab yi dañoo ñëw wax ak sëriñ bi ci bëgg a wax ak moom ci delloosi ko ba noppi nag nekkoo ko léegi dañoo bëgg nga saña ne yow doo xeex naa daal mooy liñ ko lebal lépp bëgguñ mu fay leen ko na xam nañ ne am na garde corps yoo xam ne arme boo xam ne moom bu leen joxee ndigal est-ce que ñoom nañu aussi seen plan yëpp ndax plan sëriñ bi moom plan plan bu njëkk ndax dana réussir wala du réussir ñoom loolu lépp jëmuñ ko lijjanti mooy bu mu tëral benn plan rek mu jeex nañ sañu diggante ñoom ne du xare sëriñ bi ne leen man loolu amuma ci ndigal amuma ndigalul signé ne danaa xeex wala duma xeex man ndigal rek lay déglu muy ndigalu sama borom nga xam ne waaye nag waxuleen ne dana xeex ñoom waxul it ne du ma xeex ñoom du ma xeex ak yooyu yëpp da koy gis ci biir xasida gi euh, moo tax mu wax ci biir xasida gi ne laka umuur yi abadan u fawidu wa kullu man lakal tajaa wa kullu man lakal tajaa la yorfadu waxayta nii yaa barru kufran faqi nii darara ahlihi wa kulla fitani kufa akufal mushrikiina anni bi ahli badrin waj'alhum xisni yaa barru kun lii wala tuxjilni dunya wa uxra wa tajaawaz anni loolu dafa wane wakiilug Serigne Touba tubaab yi nee na damaa wéeru ci yàlla mi nga xam ne ku làqatu ci moom dana la jóge fi ma muy dem ñëpp a ngi fi woon waaye booba nag ku sëriñ bi wéeru it doo am gannaaw. waaw kenn kenn tubaab bi moom kenn kenn kenn daawul jéem a dër dër doonte moom moo tax moo tax ba mu tollee Louga ba mu jógee fii moom sëñ tubaab bi mu jógee fii dem fanaani jeewal xëy dem kokki dem yendu Louga maanaam ña nekkoon tey ay taalibe ak i doomi soxna ak nit ñoo xam ne bëgg nañ la baax dañoo ñëw fekk sëriñ Tuubaa ca gaar ma ne ko maanaam résister maanaam manaam maanaam kiil maanaam gantul ñu xeex maanaam fii maanaam ndax booba arme bi bu waa dëkk yépp génnoon xeex mën naa am du dem waaye sëriñ bi ne leen déedéet maanaam duma xeex man laqa ragaluma am noon maanaam yaakaaruma ab soppi sama mbir dama ko jooyal ci sama borom rek yéen ñëpp dem leen ngeen toog ñi nga xam ne ñooñu ñëpp dañoo daal di mujj dellu seen i kër waaye dañoo bëggoon bu sëñ bi taxawee ngir jàmmaarloo tubaab bi ñu joxe seen bakkan ñoom bala moo bala moo jógee ci gaarub Louga ba waaye sëriñ bi ne leen man regaluma euh, ab noon te it yaakaaruma ab soppe bu may jàppale yéen ñëpp dem leen toog wax nañ ne bi ñu waa waajee départ ci Louga jëm Ndar suñ dee ba ba sori am na ci koo xam ne ci soldaar yi da bokkoon koo xam ne xëy na nit ku ñuul la léeg-léeg mu ñëw ba tolloog marab bi ne ko marab dolli say ñaan de yaa ngi bëgg a jege de waaw ndax xëy na ma mën a am sant nañ ko loo xam ne neexu ko donte que maanaam dafa ànd ci émission bi waaye mën naa am am na am na am na reqatul xal bi tuuti daal am na yërëm mbir yërmande te jàpp na ne sëriñ mën naa am xëy na su àggee du ci génn eh, su luñ gën a jege ndar rek mu léeg mu daw ba tolloog mu ne ko ma rabbu dooli say ñaan yaa ngi jege de waaye su ko ko waxee rek mu ne ko yàlla ci boppam mi ngi fépp yàllaa ngi fépp loolu loolu mooy wakkirlu gu rëy ci sëriñ Tuubaa na musa tiit musa raf musa jaaxle loolu moo tax mu wax yàlla ne ko fegal nga ma lori mboolem ñu yor ay fitna kon fitna yi ñu ko digoon yépp ba ca atte bu jeng boobee ñu ko atte woon ba ca fañ ko doon attee fañ ko doon attee wax nañ ne bi mu ñëwee lii ku ñu wax Gasper moo ko nettali si Abdul Ahad ab tubaab la boo xam ne booba nee na fekke ne ko moom yaakaar na boobu du mag waaye moo ko wax si Abdul Ahad sëñ Modou Mamoun Ñang moo ko nettali nee na moom fekke ne kere bi ñuy atti sëriñ bi ca biru ba ci biru Ndar dafa ñëw rek ñu ne ko dindil sa kaala gi maanaam sëñ bi tontuwu leen ñu insisté ci ne ko dindil kaala gi nee na bi sëriñ bi jàppee ci kaala gi dindil ko waaye da ko tàmbalee def ni rek nee taax mi bâtiment bi ci boppam di jëm jëm fa kaala maanaam bañ bañ bañ bañ yëg ne taax mi maanaam jëmmi bitim moom mi ngi dem moom ñu ne ñu ne ko arrêté ñu ne ñu ne ko baal baal baal mu delloowaat kaalam affaire bi delloowaat fi mu nekkoon ñu ne ko baax na kon baax na nga xam nga xam ne nga xam ne loolu ki ko fekkee moo ko nettali si yëpp kël kël si naaxis lanu sëriñ bambay kaamil mbar yëpp yëpp suqulal bambay kaamil mbar yëpp suqulal sëriñ bambay kaamil yan bar yanoon xutbu ya ak labdaal ya te attanul ko bamba moo ko fab rew gaay dangay di tewtul balaaya fi suuratil axwaani lam ci laay sababu xaybati ana la araadana la min jaa ونكون سافيا لقومي ونكون خادما في دومي تمامات لبamba sanc baari bisni xaalixil baraayal baari fikun na taalu bi góor la morom bu góor ba góor gu yàlla la ba mu amee juróomi weer fi baari di dugg xalwatu di ñaan lin baari saytaana dem ruuxale koog nasraan bi ni leen jiyaar lay fexe fi suudaan tubaab ba yónnee fi di wedd si kër gi di seet balak doom gis fa tiirig war nga ca moomaat la bur yàlla xar seen xol yaa def ca ragal seex bamba soppi seen xel yaa ca moomaat la bur yàlla xiir borom ndar mu wóolu sëriñ tuuba muy jileen ndar bambaaya bal maam cerno ibra baati muy ji ndar di nuru baatin ba mu demee ndar nu boole ko waaju nan demba kebe tubaab ba naa leen bambalay fabien mu dem ndar noon ba yër leetar ba ne leen garab wanxaas wa mooy tiitar ba danaa folet wanxaas wa dëjji bur ba sànni ca àll ba tasaare tool ba mama dulu kala koog borom dara ak Ibra Faati Saar nu dëkk dër dër tuddu ko lambi jul di buurum ñooro mbaa Seexi Maalik ba imaamum ñoor mbaa Seex Abdu Xaadir Tijaani ma xare samba saaji fil jilaani ca moomaat la tontonoor kalaame seexi bawal ngir bëgg a fay lislaam jarbaat ba moo jébbuloon dem di tuubi ndeyam di jooy mu naan ko tuubiru Cheikh Babacar Cargaan Njaay Sëriñ Mamar Maane Mbay Cheikh Aliou Diouf Lambaay ñu lee ko daana dan war xamam yàllahi albadim moo tax dugg ndax fi nga toll baax na loolu lépp rek day wane ne xaside gi dafa résumé tukki sëriñ Tuubaa bi te bi wuññil nañ ko mboolem étape yi muy jaar ak natt yi ko fi dal ak waxtu ya lenn lu ci ne mu gis ko xam ne dana metti waaye yooyu yëpp yàlla dina ko ci jële mu jeex yàlla nag ràng ko nag ay may maanaam ginnaaw ba mu demee ci tukki bi mu wax ne dafa mujj yàgg mujjug tukki bi bis yi ak waxtu yi ak ak ak ak ak ji ak suuf si lenn lu nekk di mujj soppi ko ay jëmm di ko tagg maanaam di ko naw maanaam seen lisaanu xaal di ko naw wan ne ko wan ne ko maanaam bis bu xëyee da koy wax nekk ko maanaam lisaanu xaal bis bi da koy wax naan ko yow Ahmadu ku la dàq jaam yàlla amul ci kaw suuf asamaan si naan ko ku la ku la dàqee jaam yàlla tiiwuma ko maanaam temps bi naan ko ku la ku la gën a feesal waxtu amul maanaam bis yi naan ko sa bis bi ni nga ko rafetal rek ku ne di wax di tagg di ko tagg xeetu zikr xeetu bind xeetu du yàlla yàlla gu nekk def na ko ba yàlla dajaleel ko ci ay xéewal loo xam ne ci xaside gi nga xam ne euh, mu ngi tudd safaru masasin jazaun lii dafa mel ne sëriñ bi ci njaareem la ko defee waaye dafa mel ne kuy rappelé xew-xew yi maanaam ama jay sasin ak la fa xew ci biir xaside gi da ciy wax yu am solo yoo xam ne day dafa mal ne tukki bi maanaam lu ko ñor la tukkeem bi maanaam ni ñuy def di ko di ko gëstu ak di ko waxtaanee lu ko ñor la ndax am na benn bis mook Cheikh Mame Bachir ñu toog sëriñ bi wax ba mu jàng mu ne sëñ Bachiru ne ko Mouhamadul Bachir sama at yama am ca tukki ba maa daa maanaam yàlla dencal dencal na ma ko foo xam ne maanaam sankuwut waaye nag adduna dudut fu ñuy wane ab liggéey waaye ma ko ba yomatub la saraayir yawma tubla sarair nga xam ne ku nawoon ku nawoon kama jihaadi wa buyuil maade jaaltaha xayra masaain radia ndax daa mujj yàgg jaww ji suuf si biddiw yi géej gi lépp di ko di ko di ko di ko tagg maanaam di ko di ko ndokkeel maanaam mu feesal aw yiw ba ba ba daj kap nga xam ne lépp lu ñu tuddee yàlla def na ko nee na nee na laqad fii daqil al askari rida maanaam maa ngi ci biir arme bi maanaam ndax moom quartier gi dañ ko boole mooy soldat si maa ngi ci biir soldat ci seen biir waaye ci seen biir laa amee ngërëmul yàlla maanaam maanaam ñi ngi xëy di gën a sor yàlla muy gën a jege yàlla ñuy xëy di mooy yàlla muy gën a jaam yàlla ñuy xëy di umpale yàlla muy gën a xam yàlla ñuy xëy di réere yàlla muy gën a muy gën a muy gën a gindiku ci yàlla ñuy xëy di ñàkk ci yàlla muy gën a xam muy gën a am ci yàlla lépp la ko defee mu ne wali qaada rabbi muxjalal jaysi bin niqam yàlla mujj maanaam jox ma ci xéewal loo xam ne gàcceel na leen ndax lañ xamoon lépp jeexal nañ ko ci ay pexe ba noppi lañ bëggoon dara lañ ca mut te it mënuñ koo ñàkk téye wa te it faaw indiwaat ko te it amuñ fuñ ko téye ñu mujj xam ne maanaam ginnaaw seen plan yëpp jeex na léegi maanaam jubóog moom rek a des ngir xool nu ñu def ak moom ba ba génn ci mu ne ya ummu ni ridwaanu min kulli wijhatin wali xiida yum na dikri wal xatti wal xalam nee na daa mujj ngërëmul yàlla dima bàyyi ko ci lu ak ci nu ak ci fu ci wet gu ne yàlla wammatal ma barkeb alquran maanaam leeri alquran ngëneeli alquran darajey alquran lépp yàlla wammatal ma ko maanaam lu lu nit mas bind ci kaw suuf mu barkeel maanaam mu mu mu mu wammatal ma ci sama mbind mi loo xam ne mosu koo wammatal kenn wax nañ ne biir xalam yi sëñ Tuubaa yóbbu woon ci géej gi ak këyit yi papier balaa yi yéen ci jot bind yéen ci yéen ci jot sa bind maa ko dégg maa ko déggee ci yaakaar naa doom yi sëñ Fallum sëñ Soñ ba sëñ Saliou mu ne kilifa nettali na ko nee na papier yooyu bi sëñ bi ñëwee daa am ñu ko sedd ñoo xam ne seen barkeelu ci dëkk bi am na ci ñoo xam ne këyit boobu bu buñ buñ mës a am soxla donc këyit papier blanc bi nga xam ne sëñ bi jotu koo bind de dafa am efficacité ba nga xam ne am na ñoo xam ne ci mag ñi ñoom dañuy tiim këyit rek ñaan yàlla faj ko nga xam ne nga xam ne moom maanaam dara lañ ci bindu de waaye efficacité kayit yu rek am na yoo xam ne dañ dañ ci fa soxla lelliti xalima yi nga xam ne sëriñ bi da ko doon tegee xasida yi di ci bind sax amul dara la mu fa bàyyi da koo defoon ci ay saako bi mu indee di ko séddale ndax xam ne dagare yi nekk ci lewiti xalima yi ak maqaama yi ak efficacité bi ci nekk moo tax mu wax ne ci diirub juróom-ñaari at yooyu dafa wax ne fazat xilaami wa midaadi wal jasad muxjala midfain wa sayfin wa asad diirub juróom-ñaari at yi di cee mel ne koo xam ne li yàlla def ci moom ci tàdd nga ak tiraanga ak wuyu nee na faazat xilaam yi maanaam samay xalima yàlla defal na ma ci sama daaje moom mi daa di samay sama daa wal jasad ak sama yaram mux ji la maanaam sayfin lu kawe maanaam jaasi wa midfain ak kanu mitrailleuse yiis dañ ko waxa mété maanaam maanaam nga yor fetal gi gën a aay ak it wal jasad maanaam asad asad maanaam yaramaw Serigne Touba bi daa mujjoon maanaam boo gisee Serigne Touba jàmmaar la moom tey si tey da tiit ba mel ne ko ko gis ak gaynde la ko yàlla defal ci yaramu boppam bi ngir tëdd ngay liggéey bi ak màgg gi ak baatin bi ko yàlla defal ci jëmmam ji nga xam ne boo am na ci am na ci ñoo xam ne bu ñu leen yónnee mission maanaam ñu ñu ñu bees ñoo xam ne dañ leen dañoo sensé kenn indi fi kenn bis bi muy njëkk gis Sëriñ Tuubaa rek la ko ragal tiit tiit du ko ñemee jege. tey waxaat na ci xasida gi fii nee na waxaat na fii ci xasida gi fii nee na saqaani ilaahi saqya mughnin mukarramin wa ma amani xawfun wa ma amani xawfun wala wala mal wara sadam wala mal wara sadam maanaam sëñ Tuubaa fi ne kenn amul ku mën a riir accès ci moom maanaam bu am na luy am na luy def sa diggante ak moom maanaam fi ne boo riiroon bu taxaw ne boo riiroon bala nga accès am na lu défendre loola défendre nga xam ne boo gisee jëmm ji da ngay tiit daa ji mu doon bindee maanaam àgg na ci agg na ci am efficace boo xam ne jaas yi jaas yi ku yoroon jaas tey jaas yi koo ko caw jaas yi juñ boo xam ne dañ koo daas ba mel na war a mel koo doon xeexal te caw ko ko ay yoon yoon wala yas billahi taala moom day daggatoo àggoon na ci daajim doon bind di ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ci jaamu yàlla di ci wéetal yàlla daajooju ku mu ko jax rek nga yàqu ku weddi nga laaj sëñ Moulay bu sa nettali nee naan am na benn kuñ faloon ku bees ci quartier gi koo xam ne benn ab commandant la wala wala wala wala koo xam ne ku bees la ci ñoom benn bis nag biñ ko mu ñëw nag di seet si sëriñ bi ànd ak ab kalbu sëriñ bi ne ko boo ñëwati fii ci man bu fi indaale sa kalbu bi mu jàpp na loolu loo naqari sëriñ bi la mu dem lijjantiwaat ba am yeneen dellusi bi aw yoon ànd ak ay kilaab bi mu jubee sëriñ bi sëriñ bi daa wéccax xalima gi rek benn benn kalb bi mu ko ko wéccaxee rek dafa takk bi léegi bi bi xaj bi yuuxoo rek maanaam daw ta xaj yi comme comme laal da ngay tàkk nga xam ne tubaab bi dafa jaaxal na la daanu ngir ba laal loolu loolu efficacité daa la waaye xalima gi xalima gi xalima gi ku mu ko joxoñ mook kuñ ko kuñ joxoñ ak ak kënu ñooyam li cay firndeel mooy am na koo xam ne ci mujjantalu tukki bi nga xam ne ci Mayomba la woon am na sàmba boobu boo xam ne bañ masaa exilé kenn suñ demee ba ca mujj ga maanaam dañ koy bàyyi ak moom ci àll bi nga xam ne kooko genre lu mel ne dox la daal bandi bi taxawaalu dalay fekk fi nga toog xam nga Mayomba Sëñ Tuubaa am na ci am na Mayomba juróomi at yoo xam ne du am néeg du ab du nawet du noor lépp ci kawam lay taw benn sélébé yoon rek la nekkoon boo xam ne am mbaar la fa def moo xam ne maanaam jëriñu ci taw bi dara juróomi at yëpp dafa taw ci kaw maanaam juróomi at yëpp du néeg bu mu fa am wala dara mbaar rek moo xam ne da ñi ñi ñiy xëy noonu dañuy romb ko jàll ñee dem seen liggéey mu nekk digg sélébé yoon boo xam ne am mbaar la fa def te moo ko defal boppam nga xam ne loolu noonu léegi-léegi day dox ci àll bi benn bis mu dajeeg benn samba mooy mu yor jeesi mu ñëw ne ko jël jaasi ji ne ko nag ma moytu ndax mboolem wala yi indi woon fii ñu yépp maa leen rey sama jaasi ji sëñ bi jël xarima gi joxoñ ko maanaam bi mu ko joxoñee maanaam dafa arrière ba daanu ne ko moytu ma ñooñu nga rey du ma ñoom te duma ma yow nga xam ne waaye dafa tiit bu ne wéqi ndaw loolu mooy juróom-ñaari at yi am na efficacité boo xam ne nekk na ci xalima gi am goo xam ne nekk na ci daaj yi am ngoo xam ne nekk na ci jëmmi boppam ji ba mujj feesal dell nag aw yiw yiwu àddina ak àllaaxira bi ñu koy indi nag di ko indiwaat maanaam di ko indi muy ñibbi si Sénégal fekk na mu dajale mboolem mawaahibu laa tatanaha bi mu ñibbisee nag ba jaar fi mu war a jaarat ci yéen ak gànnaar ak ba ñibbisi njaareem ba am fa euh, lu mat juróom maanaam fukki at fukki at ak fukki at euh, wala juróom-ñeenti at juróom-ñeenti ndax fukki at juróom la fa am te bi muy digle màggalu Tuubaa ci juróom-ñeenti ñeenteelu atam ci njëreem la la ko tàmbali def ko ay ay yoon def na ko daal lu mat ñaar ba ñett ba ñeent door ko digal mboolam ñu door ko def nag muy muy tolloog 1922 waaye xaside googu gii nga xam ne dafa wax ne safaru masasu masasin jazaa'un lii day firndeel ne nee na jalaal yi bi ma lii baana fii aami jaysasin jalilun kafaanil kayda wa durra wal walam nee na jëflante gi yàlla doon jëflante man ci jalaaliya jalaaliya mooy yàlla mooy koo xam ne su neexee mu teg ab jaamam ab natt su ko neexee mu teg ku wopp su ko neexee bu ko tooñee mu duma ko su ko neexee mu xëy xëy nattoo la dara maanaam face boobu nga xam ne cere yi defee sañ-sañam yi muy ja mooy jalaaliya Allah phase bi nga xam ne nag ci la lay jéggale jàppe la ab jaam bu doyadi muy ab buur bu di la yërëm léeg-léeg mu may la xéewal phase bu yomb-yomb bi nga xam ne ci la lay maye oto may la ci kër gu rafet may la ci ay soxna may la ci alal nga ci say morom phase boobu bu neex yàlla la boo xam ne da koy tiimee ji ab jaam léeg-léeg jalaaliyatullaahi tiim koo xam ne mënut am ñaar dërëm te day liggéey di xëy di gont am koo xam ne defu dara am kër am étage ñu ñu xam ko muy lekk di naan di maye amul benn jafe lépp ay yomb-yomb loolu nag yàlla ci boppam dafa am phase bu ci ne ak nu ko neex mu di ko tiime ab jaamam léegi nag yenn yenn yii day doon loo xam ne ay bay-bay la pour ëllëge léegi-léegi itam mu def yi pour bëgg laa nattal nattulu nattu la nattal la waaye Sëriñ Tuubaa nee na la tàmbalee ci jëy sasin daal yàlla da doon jëflante ak man ci di ma natt di nattu nag di ma nattal di ma nattu di ma nattal waaye mi ngi may denc nag mi ngi may dencal li may nattal di ko dencal di ma ko dencal ba ci mujj gi nag te mooy safaru masasin gii mu xëy xëy nag ne ko maa la doon teg ay natt di la nattal li ma la doon nattal fees na balance yi yëpp waxande yëpp fees na amutut bi maa faax a zann la maanaam mënoo ko xiyaas amut poids ndax dafa bari léegi àdduna ak alaxira duutu jeexati léegi mettital yi jeex na léegi xéewal yi rek moo des moo tax sëñ Moussa Ka ne mbay mi ñor na lekk des maanaam mbay mi ñor na lekk des moo tax mu ne safarul xuruj yi moo daan nattu yi ak yu metti ya safarul xaraj nag mooy léegi récolté rek maanaam récolté loolu moo tax nag Sëriñ Tuubaa ne kon nañ ko sant la ndax at yi yëpp dañuy récolté rek ba ay kër ñu dugg bi bi àjjana kon loolu mooy li ñu fa dajale euh, ñu santaat yàlla te xam ne ay nattu ak i ak i mettital jeex na ci mbirum Sëriñ Tuubaa maanaam ay xéewal akuk dolliku akuk yokk akuk jëm kanam ak waxtu bu nekk mbirum Sëriñ Tuubaa di wane xar kanam bu bu bokkut ak ba weesu woon moo aaja nag ay jëmm waajal ko ci seen bopp li sëñ Muntaxa di wax muy kenn ku nekk fexe ba defar sa bopp ba mu baax nga jox ko sëñ Tuubaa ndax maanaam bu mbir yi wëlbatiku yow wëlbatiku gi sa loxo ne ca sa loxo ne ca maanaam nga nga nga bokk ci ñi nga xam ne da ngay wëlbatikul mbir yi ci sa effort ci say effort maanaam mbir yi ndax dëkk bi ñu nekk tey Mbàkke yi ci 2000. boo fi ñëw woon jumaa ji kenn nekku fi woon kenn du fi toog 2000 nii fii ñu daje kenn du fi mën a toog kon waaye ca asal maanaam bokkoon na ci yi nga war a xam yi war a xam yi nga war a xam ne maanaam day yokk di jëm kanam wax waxtu wu nekk muy wane xar kanam gu bees waaye nag ay loxo ci dugg ba mel nii kon nag ñu fexe ba ñun ñu suñu bopp ñu waajale suñu bopp wëlbatiku di mbir yi di wëlbatiku di jëm ci gën a rafet ak gën a baax a gën a taaru ku ci ne nga waajal sa bopp ci gën a rafet ga gën a taaru ga nga doon ca dara kon loolu moom la ñu doon waajale bis bi tey di sant sëñ Fallu bu baax di ko ñaanal ci yéene ju rafet ji ak daa daayira bi nga xam ne ñoo fi daje ñu xam ne lii maanaam firi wuñu woon xasida gi dëgg-dëgg waaye dañ ci doon jël ay bind ñu ngi ñaan yàlla defal ñu ko fii misaani xasanatina li ñaan sëñ Cheikh joro suñu borom dëgëral ko kattan ko agale ko ay yéeneem Cheikh Mahamadou Muntaxa yàlla agale ko mboolem ay naalam ci lislaam di leen sant bu baax di leen gërëm hada wa axiru daawana wa axiru an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf euh, ci waxtaan bi nga xam ne euh, gën gaa tedd ak anam ak gën gaa matuk anam ci nga ko indee xam naa ne sax thème biñ la joxoon lépp loo xam ne doon nañ ko ci séntu rek dem nañ ba euh, gis lu kawe suñ njort lool ba jéggi dayoo ci ak leeraay ak fasaaxa boo xam ne feeñ fi xam naa nga gën ñee jàngal lu bëree bëree bari loo xam ne ëmpoon na ñu bëree bari ci diggante bërëb bi naka la fi sayxul xadim radiallahu taala anhu génnee ak naka la demee ak naka la amee relation ak xasida gu sell gi nga xam ne sànq xisbu xisbu yi fi doon jàng doon nañ ko yëkkati muy xamitu man yaasimu nii min a dara di la sant bu baax ci taxawaay boobu nga xam ne taxawee nga ko di ñaan suñu borom mu gën a yokk xam-xam bi ci gën gaa matuk anam te gën la àggale yéene yi gën a wéral yaram bi ba li nga bëgg a liggéeyal xam-xam ak seexul xadim lépp nga man koo taxawe mu mel ni li nga xam ne bu ñu ko bëggoon a tàngaleex ci tàngaleex bu gàtt rek li nga xam ne junj nga ko fi bari na lool yaatu na ba mënee su ko lim waaye bokk na ci mooy xasidi gii di xamitu man yaa si yaasimu nii mina dara gannaaw bi nga xam ne sayxul xadim radiallahu anhu wàcc na ci bërëb bu sell di waajal natt yi dikku ndigal dong la doon xaal moo tax bi nga tubaab bi njëkkee jox convocation mu yabal maam Thierno Birahim junj ko ko boobu daa amatoon ndigal la dem dikku ndigal li nag mi ngi am ci fajar gi fajaru gaaw te mi ngi tombeek muy bind xasidi gi nga xam ne mooy xamitu man yaasimu ni mina dar waaye nga wane ci timit ne sayxul xadiim ku yéeme la ndax li nga xam ne daj na ko ci tukki bi li muy metti métti ak lu lu yéeme ak fitna yim ci am yépp daa mel ni da koo junj ci biir xasida gi te loolu dafa naa kémtaan la ndax koo xam ne dañ laa wax ne la ay nattu la yoo xam ne ñoo lay xaar mu toll ci ñeenti téeméer yu teg ñaar fukk ak nangam ak juróom-ñaar ñu ne la moom lañ lee teg ëmpal la natt ya waaye de nga bind xasida goo xam ne mboolem luñ la teg man na mënees naa wax ne junj nga ko ca biir bokk na ci gannaaw bi nga xam ne wàcc na ci bërëb bii di ndar gannaaw ba nga xam ne tubaab bi Seyxul Xadim egsi na ba julli ñaari rakkaam yooyu wax na yàlla ak yonent bi la koy nuyoo te bërëb boobee ñoom ñi bañoon ko fa julli lool ba la ca xew-xew ca bañ yëngal mbaxanaam béréb ba dafa daal di yëngu ca sens mooy kéemtaan gu njëkk ga loolu bokk na ci li nga xam ne jiñu nga ko ak guddeem yee nga xam ne moom la am ca Ndakaar nga xam ne dem na ba sëñ Moussa di wax naan sëñ bi wax na ne su ma fàttalikoo ñaari guddi Ndakaaru nee na sooy fàttali wa zalika al amin wa subuta taarat ila al jihaadi bil armaahi nafsi walakin zabba anni maahi naan saa yu ma fàttalikoo ñaari guddi yooyee damay bëgg a jël xeec jihaad ak noon ya waaye yonente bi sallallahu moom mooy dox sama diggante ak noonu yi na ma da ngay xeex ak borom xaj bi waaye bul xeex ak xaj bi mooy suñu borom tam da ngay wax ak da ngay jàmbat ak xaj bi da ngay maanaam xaj bi bu tooñee da ngay dellu ci borom xaj bi mooy suñu borom tabaraka wa taala waaye de bul mas a dem ci xaj bi di fayante moom ndax boo fayante ak moom sa tànk mën naa damm te loolu mën naa junj nga ko muy lu am solo loo xam ne junj na ko moom it mu mel ni junj nga tamit ne sayxul xadiim boole nañ ko ak nag woo xam ne yëkk wuñ yafal wuy fàdde comme ni ko sëñ Moussa Ka nettale boole koog yëkk woo tëj leen foofa yëkk woo mel ni xaar mu gis boromam nga xam ne ci benn mbedd boo xam ne moom lañ ko booleeg yëkk woo xam ne wu ñu yafal la ñenn ñi sax nee na yëkku xaram la waaye yëkk woo dafa daal di eh, tas ba mel ni lu jéggi dayoo gannaaw ba ko Jibril dooree laafam ya ak lu ci mel ni gaynde ga nga xam ne moom lañ ko tëjoon ci digganteem ak néeg bu xat boobee loolu lépp doon na loo xam ne lu feeñ ci waxtaan yi la waaye mu mel ni seexul xadim it junj na ci biir xasida gi xamit man yaasimu nii mina darar jëflante yi yu métti yuñ ko doon teg te sañu ko woon a bañ ndax daa bokkoon ci saat yi sañoo wax on sañoo okkatu sañoo gertu sa gannaaw sañoo wax fan lañ may yóbbu loolu daa bokkoon ci li yonent bi saatante woon ak moom muy ay yëfar yoo xam ne yiw bon ba jéggi dayo la di ko teg li gën a naqari ci xeeti métit te suñu ko gàntal nga xam ne dem na ba nga junj ko ci biir ne dem na ba ndox mi mu doon jàppee sax mas naa jeex benn jour mu bëggaa ndox mënta fexe ba am ndox ku mu laaj ndox nga bañ waaye kéemtaan gu mag ga ca feeñ mooy suñu borom ca sens la wàcce ndoxam mu barkeel mu dekk ca jàpp naan li mu bëgg def yëpp mu def ko te loolu ci kéemtaan suñu borom yi la wana nga yén ne Sayxul Xadiim ku am ay métit la ci biir tukkeem bi waaye li ci gën a yéeme méttit bu mu mas a am rek suñu borom dafal na ko tawféex nga junj ko ba léegi ci biir ci biir xasida googu loolu it dafay wane na rek moom ku amoon ay jagle la waaye nga jeexale sa waxtaan ci mit ci leeral ne Seexul Xadiim tukki bi métti na lool donte ñun ñii di taalibe rek ñu koy fàttali ko dañuy métti lool waaye nga fàttali na jaruñu ci na ci nag lool ndax bu ñu fàtt na sëñ bi lépp lu ma am tukki bi moo tax mu am ko wax na ko boppam ndax moom nee ne bi mu misaalee diggante avant muy dem ci géej gi ak bi mu demee ba ñëw nee ne avant muy dem ci géej daa mel ni benn mag mu am doole yor ay ndaa bi mu yoree ndaa yi daat koy duy ba daat koy tëj teg ci ay pot waaye duyu ko nee ne mbooloo mi gis ko ñu mbooloo mu mar gis ko rek daal di ñëw toog jàpp na ndaa yi am ndox fa see naa naan nee na fekk ndaa yi amagutoon dara nee na kañ la ndaa yi am ndox mooy bi mu demee si géej gi ba ñëw ci la duy ndaa yi ba fees nandal nit ñi moo tax ñu naa sëñ bi day lim li mu nandalee doomu aadama yi te jamono ji fii ba àddinay tukki ku bëgg a nàndal moo ku bëgg a màndi moo leen nàndal nga bëgg ko ak nga bañ ko te loolu lépp mi ngi ko amee ci tukkib géej bi waaye nga wane ne it ne jëlee na ci ay may yoo xam ne am na fu muy tàmbalee waaye amul fu mu yem moo tax benn benn wolofal boo xam ne junj na ko ne mbay mi ñor na lekk moo des gannaaw bi nga xam ne sëñ bi ñibbisi na nee na moom noonu la déggee sax ne mooy tukki bi waaye loolu mooy li am nga xamante ni lu jéggi daal bu ñu bëggoon a wax lim fi réaliser yëpp dafa naa ne fii la ñuy fanaan waaye ñi ngi sant bu baax di wax na daal mbooleem lu lu ñu yaakaaroon ne dara ñëw ci biir thème bi rek ñi ngi lay xamal ne am nañ ci lu suñu jot di suñu borom mu yokk fan wi bu baax a baax a baax xam naa ne di daf benn fàttali rek di jégalu ci mbokk yi nga xam ne teew nañ fi ku ñu mel ne Serigne Cheikh Gaawaan Mbacke im na Serigne Cheikh Thioro teew na fi ñi ngi leen di fa xamal ne teew ñu ngi koy dalal ak jàmm di di sàkku ci moom ñaan bu baax a baax di sant it télévision bii di TFM nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bu baax moo xam annonce ak jàllale yëpp jàpp nañ ci ñu ngi leen di sant lépp loo xam ne fu ñu bëgg àgg la ñu àgg fa ci turu sëñ Mouhamed Moustapha Ndiaye nga xam ne moo jiite liggéey boobu. ñi ngi sant it benn site bi ñuy wax IDTV bu Daara Jolof nga xam ne ñoom it jàpp nañ ci liggéey bu baax ci jàllale yeeg yooyu ñu ngi leen di sant bu baax sant bu baax tamit ñu doon taxawee njàngam alxuraan yi nga xam ne. ci bëccëg ba léegi ñoo fi nekkoon di wàcce ay kaamil ak xasida yi nga xam ne doon nañ ko fi yëkkati sëñ bi nee na mi ngi leen sant yéen ñëpp di ñaan suñu borom li lépp fu ngeen bëgg a àgg rek ngeen àgg fa ak mbooleem soxna yi nekk ci wàccaal ñam yeeg yëpp ñu ngi leen di sant ci gën gaa matuk anam di fàttali yi ne sëriñ Seex Joreel Mbàkke ci turam mi ngi ñaan bu baax a baax a baax waaw di ko tëjee rek ay kàddu yoo xam ne kàddu yi ñaan la ak sàkku ñaan ak kàddi sant bu baax jëmee ko ci Serigne Cheikh Joral Mbacke moom mi nga xam ne moo fi moom bu ñu doon Seexu Xadim am na fii tànk ñu ne moom mooy tànkam wala moo fi buntam ci fii ci Jolof ñun moom suñu sag la ñu ngi koy sàkku ci moom ñaan bu baax te it di ko ñaanal yàlla mu yàggal ko fi lool ba lim mu bëgg liggéeyal diina ji yëpp mu mën koo mu mën koo réaliser. gannaaw ba yéen ñi ngi sàkku xam naa ne Euh, gannaaw ba nga xam ne yëkkat nañ kàddu yooyu yëpp ñu jàllale kàddu gi ci Serigne Cheikh Diorel Mbacke ibnu Cheikh Dioro ñaanal ko suñu borom di sàkku ci moom mu euh, soññu ñu incha allah bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala euh, ñu ngi leen di nuyu di jiite ci nuyoo bi sëriñ Cheikh Gaawaan di nuyu sëriñ Fallou Silla di nuyu mboolem mbokk yi nga xamante ne yendu nañ fi ñëw fi tey jii ngir fàttaliku dundal biss bi nga xam ne mooy Rabian Safar nga xam ne sëriñ bi ci la amee woon ji ak pas-pas mi nekk ca waajtaay wi ba ci na ansar mu xëye fi seriñ bi ci boppam itam tuddal boppam Rabian Safar kon yàlla na saabu bis bi dikkee bu saamina ansar nekkee Tuubaa itam rabian safar ñu dundale ko fii nga xamante ne fii la ko tuddee muy Mbàkke Bari ñuy sant nag bokk yépp ci taxawaay bi ci li jiitu lii itam ci seeni taxawaay te lépp doonuk taalibe euh, lépp doon lislaam kon ñu ngi leen ci sant di gërëm te di leen ñaanal yàlla na leen yàlla def ay mag te barkeel leen yal yàlla saxal na ci lislaam te saxal nu ci ak taalibe te sunu borom nangu na sunu taalibe sëriñ Fallou ñu ngi lay sant dina gërëm li ñu séentu woon defal nga ñu ci lu kawe njort ci thème bi nga xamante ne moom nga ñu andil euh, muy euh, wakkirlu sëriñ bi euh, akub dëddoom akub liggéeyam ak sangew gi nga xam ne sangew woon na ko xasida gi mu tënki xasbunallahu wa ni'mal wakilu kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax te xam ne màggal moom weesuwul lii ñëw ba fi nga xam ne fi la xew-xew bi amee woon bu fekkoon dañ fee daje rek bi ñu julli timis ñu geesu xool mbooloo mi ñu kàbbar julli ñetti ràkk yi timis yi sëlmal rek daañu xam ne sëriñ bi moom lam bëggoon am na ko ndax dañ woon du fi kon nag bu ñu jekkee ba jamono tari bi sëriñ bi dajewaat fi daje fi wenn waxtu rek julli waxtu waxtu suñu borom bi loolu day tegtale ne nangu liggéeyu sëriñ bi rek feeñ na ci loolu rawatina nag taxawaay yi nga xamante ne am ngeen ko ci yëpp kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di soññ rek ñu gën a góorgóorlu te waajal bis bi nga xamante ne sëriñ bi dafa waxoon ne saa bu dikkatee na ma ñëpp santal yàlla li ko tàmbalee ci ganaar ba ci gëléem kon ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi suñu borom defal leen ak mucc ak wér ak yokk ak yàgg fi bis bi itam ñu fas yéene rek saa bu dikkatee ñu dundale ko ci nii dundale ko ci sunna rek jàng alxuraan jàng xasida waxtaane sëriñ bi waxtaane dundu sëriñ bi loolu lu am solo la am na magum tukkuloor mu baax sori wu fi fii la dëkkoon daana ma wax ne sëriñ bi moom mbiram dafa ëpp xelum doomu aadama ba tax na lépp luñ ci wax rek lam waxal boppam moom moo gën a rëy bu jooju wax waaw <laughs> lépp luñ wax rek lam waxal boppam moo gën a rëy wax te du waxe ci bakkan lépp lu mu wax rek yàllaa ko wax kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu àq ñëpp di ñaan yàlla nawet bii tàmbali yenn ko yàlla ak àggale ci jàmm di ñaan Cheikh Mouhamadou taxa yàlla na sunu borom defal ko ak mucc sunu borom bàyyil na ko fi naal yi mu naalal lislaam naalal ko euh, yoon wi sunu borom bàyyi ko fi ak sago mu àggale ko nam ko bëggee ànd koo ki rakkam ki njabootam ki taalibeem ak ñun bu taalibe yëpp ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di sant Cheikh abul Baraka moom itam di ko ñaanal sunu borom moom itam sàmm ko sàmm njaboot moom Mouhamadou Fadilou di ñaanal itam sunu rakk yi sunu borom sàmm leen sàmm njaboot seen Cheikh Thioro ba nga xamante ne doona li nga xam ne téyeel nañ ko sëriñ bi suñu borom saxal ko suñuy loxo bañ def ci lu kawe njortam ci dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Xaadimu Rasuul asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu